dalati leen ak jàmm ci li gën a fes ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy daal di dooree ak coowal Sémou Diouf di policier bi nga xamante ne moom la ñu ne dañu ko fekk ca diwaanu ko parcel ase Assainies mu daal di xaru ginnaaw ba ñuy xam la rek ne dafa jël pistolet ba daal di tiire boppam mujjee ñàkk bakkanam waaye nag wàllum xaru boobee bu ñu sukkandikoo ci journal Les Échos yéenekaay daal di nay xëy nag di xamle rek ne police daal di nay dàq lu ni mel ndaxte mu ngay xam ne ne kii di Mame Sémou bu kenn taxaw ne dafa xaru ndaxte bu fekkonte ne dafa xaru du toogaat di dund ñetti waxtu yoo xamante ne yóbbu nañ ko ca diwaanu ko réanimation ginnaaw xibaar yooyee nga xamante ne nag tembe rek police daal dina koy indi comme ay preuve la leen ca gën a yéema bokk na ci kii di Mam Semo su fekkente ne moo tiré boppam bal pistolet ba dañ ko waroon a fekk ci ay loxoom waaye pistolet boobee ba ñu ñëwee fekkuñu ko fa ca ginnaaw ga rek la ñu ko mujjee yëkkati daal di koy jox police looloo tax nag ba police saa di nekk ci enquête bi bu ñu sukkandikoo ci les échos yéenekaay lépp loo xam ne dafa laale ak wàllum xaru di faat bakkan ñu daal di ne nag loolee daal di nañu koy dàq ndaxte kii di Mame Sémou jàpp nañ ni ab doomu aadama moo dugg daal di koy faat ñu seqi jéegoo dem ca diwaanu ko Touba Mbacké ak mbir mu doy waar mi nga xamante ne nag moo fa daal di am bu ñu sukkandikoo ci source a mi joxe boobu la xibaar mu ngay xam ne nag daal di ne mbir mu doy waar mi nga xamante ne am na ca Touba du lenn rek lu dul benn responsable bu bennoo bokk yaakaar boo xamante ne nag mu ngay tuumaal jëkkëram daal di ne kaw am fukki at ak ñeent waral na nag ba ndaw soosee nekk ab politicien ñëpp daal di koy ràññee ci diiwaanu ko Touba Mbacke ba mu bëggee dem ca kanamu attekaay ba daal di fay kalaame jëkkëram way juróom bu góor bi nga xamante ni nag moo ko sàkku ngir mbir mi ñu daal di koy nës nësal laata muy dem di boole ji jëkkër ja ndaxte nag jëkkër joojee ñu ngay xam ne ni ab chauffeur oto la di dawalal benn kilifa diine bu mag boo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci diiwaanu ko Touba Mbacke ca waxtu ci ay kër woy juróom daal di tas boobule sëy moo ndaw si nag mu ngay xamle ni li ko gën a metti ci àddinaam bokk na ci magam ju jigéen jour ba mu ñëwee di ko xamal rek ne ko sa jëkkër dama kaa fekk muy àgg sa kaw rakk ji nga xamante ne fukki at ak ñeent rek la daal di am ndaw si nag daal di mer ba futu di xamle ne rakkam joojee moo ko musa yor ci biir néegu sëyam jëkkëram xel xalaatul woon benn yoon muy àgg ca kaw rakkam joojee amul lu dul fukki at ak ñeent bu ñu jógee ca Touba dañuy daal di àddu wax ci projet bi nga xamante ne nag Akon nekk ab doomu Sénégal di ab rappeur bu mag bu ñu xàmmee ci diwaanuk États-Unis moom mi nga xamante ne nag dellu si na ci ko Sénégal daal di tekk benn projet bu ñuy woowee ay Akon City ca waxtu boobee nag promoteur bi di Akon daal di nay dajee ak waa Mbodiène dimanche gi la ñu génn naaw daje gi nga xamante ne daje nañ ko nag bokk na ci ay projet yoo xamante ne mu nga ko bëgg a taxawal ñu tuddee ko Akon City soo dee xayma rek daal toll ci juróom benn ci ay milliards de dollars ca waxtu boobee nag Akon mu ngay xam ne ni lépp lu jëm ci wàllum infrastructure éducative yoo xamante ni gone dinañ fa mën a dugg di jàng waaye tamit wàllum bërëbu fajukaay ginnaaw bi rek wàllum tàggatukaay ak wàllum tourisme dinañ ko fa tabax foofee ca diiwaanu ko Akon city gi nga xamante ne bëgg na kaa taxawal ca diiwaanu ko Mbodiène waaye askan ba yeewoo ca Mbodiène bu fekkente ni ànd nañu nag ci projet boobee nga xamante ni rek Akon city bëgg na ko faa taxawal ñoom bàyyi xel bu baax a baax ci seen wàllum dundin waaye tamit gën a jàppale ndaw ña fay yeewoo ñu daal di àddu wax ci wàllum tàggat yaram bu ñu sukkandikoo rek ci mercato bi nga xamante ni mën nañ ne door na ki ko tàmbali du kenn ku dul Ismaïla Sarr bu ñu sukkandikoo ci coach red bi nga xamante ni nag moom Klopp moom mi nga xamante ni Stassile Tembe rek mu ngay demande ci dirigeant yi ngir ñu daal di recruter kii di Ismaïla Sarr bu ñu sukkandikoo ci la quotidien sport record bi nga xamante ni nag daal dinay joxe boobule xibaar leen ci ay dirigeant yu nekkee ci ñoom nag ñu ngay commencé rek di dox ci kaw ñii di waa Watford ngir ñu transféré leen kii di Ismaïla Sarr waaye nag ca waxtu boobee rek waa Watford ñoom ñu ngay sàkku ngir ñu daal leen di jox li mu ko 45 millions d'euros cëpp koppar ci suñu CFA mu ngi toll ci 29 virgule 2 milliards de francs CFA loole moo nekk transfert bi nga xamante ni fixé nañ ko ngir kii di Ismaïla Sarr mën a dem ca diiwaanu ko Liverpool addu wax ci wàllum politique ginnaaw statut de chef de l'opposition bi nga commission politique bu dialogue national bi saa sile tembe bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi ñu tribune ak las quotidien daal di baaxee altinek tey gi ñu ngay xam ne nag majorité bi di Khalifa Sall Pape Diop Malick ma Madické Niang Cheikh Adjibou Soumaré ñoom nag ki ñuy sàkku mu jiite leen rek ci ku jéeg politique gi du kenn ku dul Idrissa Seck leader yooyee daal di nañuy jàpp nag ne Idrissa Seck moo ñëw taxaw nekk deuxième ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle ya ñu génn waaye yoon muy choisir kii di Idrissa Seck que mu choisir kay moo di maître Abdoulaye Wade Ousmane Sonko daal di bu fekkente ni ñoom nag dañaa choisir résultat présidentiel yi nga xamante ni génn nañ ko moom mu ngay calculer résultat élection législative yi nga xamante ni rek ñu ngi ko doon amal ndaxte nag kii di Idrissa Seck warta nekk benn yoon chef de l'opposition ci kanamu maître Abdoulaye Wade ca waxtu boobee njiitu réew mi Macky Sall nag li mu def toll ci 40 millions yi mu doon yëkki di ko jox magistrat ya njiitu réew mi Macky Sall bi la yoon dafa lànk ndaare tëdd ci suuf banque loxoom ne boobu la subvention annuelle toll ci ñeent fukk ci ay millions du ko jox yooyu le magistrat waral na nag ba kuréel gi nga xamante ni moom moo di UMS kuréel gi ëmb magistrat yooyee daal di taxaw nag nekk ci guddi gu bër setagul ci waxtu boo xamante ni nag ëttub attekaay bi wàllum magistrature bi ab crise bu metti moo ci dal di am ginnaaw bi rek nga xamante ni jiiñante wàllum guerre de corruption ñu ngi ko fay nemmee nemmeeku ci diggante Amadou Yaya Dia ak kii di maître Ousmane Kane nekk président de la chambre à la cour d'appel bu nekkee ca diwaanu ko Kaolack ca waxtu boobee syndicat bi nga xamante ne moom moo ëmb ñiy liggéey ci wàllum yoon di Sudjuste ñoom tamit nekk ci guddi gu bër setagul ak i grève ginnaaw bi nga xamante ne rek beneenub dàq daa dinay ñëw dooleeku ci mu di juge Ngor Diop moom mi nga xamante ne nag saa sile tembe rek dafa placé su mandat da dépôt benn di koy yëkki amal ba mu nekkoon addu wax ci beneen mbir mu doy waar mi nga xamante ni nag moo daal di am benn xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Maam Jaara Diop am ci lu toll ko 19 ans moom nag moo doon jéema a xaru ginnaaw bi nga xamante ni ndoxum eau de javel daal di koy naan bu ñu sukkandikoo ci Les Échos yéenekaay mi joxe boobule xibaar mu ngay xam ne nag mbir ma mu nga am guddik tam xarit ca rond gàddaay gi nekkee ca diiwaanu Géejawaay ñuy xam ne nag ne ndaw soosee li ko jaral xaru bi du lenn rek lu dul ne ab convocation lañ ko indil mu fas yéene wuy ji ñaari fan ci weeruk sàttumbar gi ñu dëgmal loolee sax moo waral ba ndaw si xooyal ab eau de javel daal di koy naan saa si le tembe mu nga ca diiwaanuk l'hôpital waaye police daal dinay tijji ab l'enquête weeru septembre gi nga xamante ni nag ko ko xam daal di xam li nga xamante ni moom moo di kankurang ba cay génn waral na nag ba cérémonie bañ ci doon amal maanaam di xarafal ndaw ña te diiwaanu ko mbuur te mande ngi di ko organiser bi la yoon nag daal di nañu koy annulé te dara waralu ko rek lu dul mbas mi nga xamante ne moo ne sax ci réewum Sénégal bu ñu ci ki nga xamante ne nag moom moo di du Mamadou ay dara Diop nekk secretaire général de la collectivité Mandeng nee na xeex bañ doon xeex boobaak léegi ngir daal di daan doomu jàngoro jàngoroy mbas mi du ñu toog ba mois de septembre bëgg cee dajale ay doomi aadama wallante ga da ca gën a yokk danañ ko dàq ba déwén ca diwaanuk Saint-Louis ginnaaw jeudi gi ñu génn ba nga xamante ni rek benn gaal dafa daal di suux ca waax ya ba ñett ci ay doomu aadama daal di cay réer ñaar daal di ciy feeñ saa sile tembe nag ñaar ña ca feeñ daal di jot seenug ba bakkan waaye ñett ña desoon ca biir ndox ma seenu koor daal dinay génn ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ne Ndar 24 ñoo ko daal di joxe ñu ngay xamle nag daal di ne koor yooyee ginnaaw ba ñu génnee commencé yàqu daal nañ leen di denc ci benn village ba ñuy woowee xënna bi nekkee foofu ca diiwaanu ko Saint-Louis ñetti doomu aadama yooyee nga xamante ne ñoo nekkoon ci boobu boobule gàll cité mixta di wéy di jurub coow ndaxte juróom benn ci ay doomu aadama la ñu fa daal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yembo ak bisub tamxarit ñu ngay xam ne nag ne ci cité mixta mbir mu doy waar moo fa daal di amati ginnaaw ab anniversaire bañ doon amal ba ñu toogee ba ay 3 heures du matin la police daal di def descente ca boobu la cité dugg ci benn appartement boo xamante ne nag fekk nañ fa kii di Alpha fekk fa kii di Gomis waaye kii di Cheikh Fall Ameth Diop ak Sidi moo Modou Ndiaye ñoom ñëpp ñu daal leen di boole patam patamee yóbbu fa mbaxane doonee benn li ko waral nag ñaar dugg ca bërëb ba fekk fa lii di drogue dure ginnaaw enquête bi nga xamante ni sa si la tembe police daal dina koy tijji ñoom ñooñee ñëpp kenn nangu cee àddu wax fan la ñu jëlee boobu la drogue wala anakan moo leen ko jaay ci ay xibaar sax ñoom ñooñee ñëpp daal dinañ leen di boole defeere leen Cheikhouna Gueye ñëpp gën kaa xam ci Sanex Samb moom nag daal nay takk deuxième seexu Cheikhouna Gueye moom yi nga xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci seen théâtral bi ginnaaw bi nga xamante ne soxnaam si di Sadiya ñoom ñaar def nañu ay at negi ni démb rek Cheikhouna Gaye daal dinay jël beneenub soxna di deuxième femme deuxième femme boobee nga xamante ni nag mbir ma ñu nga ko def ci xew bu simple dara waralu ko rek lu dul mbas mi nga xamante ni moo nekk ci biir réew mi waaye nag ci image yi mën nañ cee gis ki nga xamante ni moom moo di xaritam di ji waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ndiaye ak troupe Soleil Levant daal di ko fay teewal rédaction bu bët set di souhaiter Cheikhouna Gaye wàllum làmb ginnaaw Gaston Mbengue mi nga xamante ni nag saa sile tembe rek bu ko yebul daal di dem làmb ji plan B ginnaaw Gris Bordeaux mi nga xamante ne nee na combat wam diggante ak Balla bu fekkente ne Gaston Mbengue moo ci des ngir tëgg ko rek combat boobee daal dina koy jël teg ko ci suuf Gris Bordeaux ne waaw suñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante ni Gris Bordeaux daal dina koy xamle nee na noppi na rek ngir yëkkati fukki million yi nga xamante ni Gaston Mbengue joxoon na ko comme avance ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye 2 Gris Bordeaux daal di taxaw nag daal di ne saa si tembe li mu mënta d'accord rek mooy Gaston Mbengue mi yor làmbinam di wax fa ko neexee ak fa ko safee